mu nekk euh, membre ci euh, cadre yu Pastef yi euh, moom la ñu fas yéene waxtaanal ndax xam ngeen ne nag ñii di waa Pastef li nga xam ne nag moom mooy terrain politique bi jamono ji ñoom daan nañu ci fës bu baax a baax Fadilou Keita am na ñu mbégte dalal la tey ci sunu plateau ci réew Rewmi FM. jëf Abdou Khadre maa ngi lay nuyu di la remercier bu baax ci invitation bi di remercier technicien yi nga àndal ak sa auditeurs yi lay déglu Euh, Fadilou euh, Keita yow nga bokk ci membre yi nga xamante ni tey euh, ñoo nekk ci Pastef bala ñuy jàll ci actualité parti yu bari ci Sénégal dañuy wax ne dañoo am jafe-jafe structuration yéen parti Pastef li tax ma laaj loolu yow da nga bokk ci membre cadre yi kon am na benn structure bu am est-ce que structure ngeen parti Pastef waaw xam nga structuration moom fekk ni ci ñu ngi ñëw fekk parti bi mi ngi organisé wu euh, de manière parfois conjoncturelle mais maanaam day am ay xew-xew jamono yoo xamante ne day tax parti bi di tëgg ni nga xamante ne noonu la structuré wu rek structuration du jeex maanaam structuration loo xamante ne la tant que parti bi mi ngi dund rek dañ koy modifier saa su nekk fi au fur et à mesure parti bi di màgg au fur et mesure nit yi di gën a ñëw au fur et à mesure muy bokk ci yenn coalition yi wala yenn kuréel yi nga xamante ne en fait dafa am leen yëkkati pour ñu koy xeex ci ay ak ak mais man mii di wax ak yow dama liggéey ci structuration parti bi bi ñu génnee élection yi au mois de février passé au mois de mars ci ndigalu euh, ñi nga xamante ne ñoo yore parti bi ci yenn responsable yi comme parti bi ki nga xamante ne moo yore massification parti bi ak ki nga xamante ne moo nekkoon coordonnateur euh, Dakar man lañ santoon pour ma liggéey structuration bi ànd seeg ay yeneen jeunes yi nekk ci biir parti bi ñu toog ay jamono di ko liggéey pare def suñu rapport euh, jébbal ko ñi nga xamante ne ñooy responsable yooyu donc parti bi pour wax la lu leer structuré nañ ko am nay organe am nay instance yoo xamante ne yëpp ñu ngi fonctionné te loolu bi ñu ko defee sax dafa yàgg quoi dafa di rek fan yi mbir yi dañoo gën a yaatu gën a ubbeeku parti bi aussi am ambition dem élection yi di ñëw mais bëgg def lu mu gën a gaaw congrès boo xamante ne ci lay fale ñi nga xamante ne ñoo nekk ci post yooyu mais bu nekkee structuration kese am na carrément. Euh, li ñuy wax euh, école du parti est-ce que Pastef am na ko. bien sûr ki nga xamante ne mooy directeur directeur parti mi ngi tudd Moustapha Sare démb rek mi ngi woon émission sur la 7 TV euh, directeur adjoint bi aussi mais coordonnateur pour débatteur passif aussi mi ngi tudd amadu Ba mi ngi dëkk Saint-Louis ñun ñëpp ñoo bokk benn groupe di jàngalante suñu biir yenn professeurs yi di def euh, di def ay di def ay ay ay ay formation yoo xamante ne militants yi lañ koy defal pour wax leen si connaissance su parti ni la ñuy xamee parti bi la mooy taxawaayu passif la mooy gis-gisu passif ci développement ci àndandoo ci jàppante lan mooy patriotisme et cetera et cetera am nañu école parti bi fonctionne bu baax a baax a baax. fadilu euh, Fadilou tey euh, li daal yeneen partie politique yi wala ci wàllum politique ñu koy gis ci euh, fépp ci Sénégal est-ce que loolu dal na parti Pastef maanaam nga dem ci benn département wala benn région wala benn commune. nga dégg ndaw bi ne man maa jiite jeunes yi xëccoo am si wala jigéen bi ne man maa jiite jigéen ñi wala kii ne man maa jiite fii cadre yi lu mel noonu ndax dal na Pastef loolu dalul Pastef parce que xam nga Pastef nga parti yu aussi il faut ñu am il faut ñu xam ni liy indi coow lu bëri mooy parti yi li ñu àndee ñun li nga xamante ne moom la ñu àndee du ay affaire post du ay affaire maay jiitu wala man maa la mën dañu bokk benn projet commun mooy Sénégal li ñu bëgg changer doxalin bi doxalin boobu changer ko mooy principal combat bi nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu bokk léegi nag bu ñu ciy dem ku ci nekk da nga ciy dem sa xam-xam sa am-am ak sa temps ak say moyens et boo ci dem tamit yow da ngay am yaqin que ni li ngay def nii defoo ko parce que ëllëg dafa am lu ñu la war a fay parce que ñun li ñu xool mooy ki gën a yelloo mbir yi ki ko gën a mën a doxal ñu ànd ak moom de bonne foi euh, euh, euh, def liggéey yooyu donc loolu moo tax gox yi doo si mës a gis kenn koo xamante ne day ñëw naan maa war a jiitu maa war jiitu diw donc structuration day am ba pare après bu ànd liggéey bi aussi li nga xamante ne moo ñu régir muy tax yi nga xamante ne moo ñu régir xamal nañu bu baax ne mënuñoo jóg ngir ay affaire intérêt personnel mais Sénégal moo ñu tax a jóg donc su boobaa dañuy xool ki gën a mën a avancer mbir yi rek ak profil bi gën a baax ñu jiital ko loolu problème euh, léegi euh, Fadilou euh, mënuñu ñàkk wax tamit ci li nga xamante ni tey mooy waajtaay bu Pastef amee ci élection locale yi ndax tey euh, après élection présidentielle bii mooy élection locale mooy nekkaat beneen taxawaay boo xam ne ñenn ñu ñoo ngi koy xaar ci ci Pastef ndax dem ngeen fi élection législative dem ngeen fi élection présidentielle mais élection locale euh, bii moom euh, ñu bari ñoo ngi leen si bàyyi xel ndax yéen a ngi siy bàyyi xel ak ndax yéen a ngi koy waaj aussi. ah bien sûr loolu liggéey bu yàgg yàgg yàgg la tey bi ñuy dem présidentielle rek. baa ñu dem présidentielle am na lu yàgg loo xamante ne gars yi liggéey nañ ko ci ci gox yi gox yi fasanti ko nekk Sénégal yépp ba résultat élection yi aussi boo xoolee ni mu tasee si réew mi ak bitim réew gis nga ni liggéey bu baax am na parce que même parti bi jël deuxième sax ñun suñu liggéey suñu résultat mu tasee ci Sénégal ak bitim réew moo gën a baax fuuf donc bu ñu def élection de représentativité ñun sax ñoo leen di ëpp ay représentation loolu benn affaire la mais deuxième affaire bi mooy cadre passif yi nekk ñu ay cadre yoo xamante ne dañuy toog seen bureau yi wala dañu toog rek ci plateau télé wax kenn ku ci nekk yaa ngi fexe nooy fexe weekend bu nekk wala soo ko mënee en tout cas loxo temps permettre ak ses moyens nga dem sa gox bi nga xamante ne fa nga dëkk di militer parce que bëggu ñoo former ay cadres yoo xamante ne ku ci nekk rek da jàpp ne yow da nga am benn station boo toll wala dugg wala nekk homme de terrain da ngay toog sa bureau wala da ngay dem ci plateau yi kese donc tout le monde fait le terrain kenn ku ci nekk nag fa nga mën a impacter fa nga mën a indi nga mën a yokkee résultat passif yaa ngi fay dem loolu moo tax ne local yi di ñëw ñun ñu ngi koy appréhender avec beaucoup de sérénité mais aussi liggéey bu mag a mag a mag a mag ñu ngi ko ciy def ba incha allah yaakaar nañu si jógee nañ ci am résultat euh, ndax jàpp ngeen ne élection locale yi euh, app bi ñu wax ne moom lañ ko jàpp ndax jàpp ngeen ne dina am ak euh, Sénégal fi mu toll coronavirus beeg jafe-jafe yi tamit est-ce que jàppoo ne yenuwul maanaa ñu ñu dàq ko bu baax a baax ba xalaataat ci. non yaakaaruma ko parce que tàngaa tey coronavirus bi ñu ngi koy coow di ko wax. mais bu ñu seetloo li gars yi di publier ci résultat test yi nga xamante ne mi ngi am gis nañ wàcc na bu baax a baax a baax euh, fi nga xamante ne kay fa la commencé woon am sax commencé waat am sax mooy gis nañ ne commencé waat na yéeg bu baax France ñu profité pour demander état du Sénégal mu jël responsabilité bi yëpp bu laajee tëjaat frontière ak Union européenne na ko def parce que jamono yële Union européenne ubbi na ay frontière am mais dafa tëjaloon Sénégal ay frontière am a jël ay décision tout de suite balaa ñooñu ne ñu ngi infecté wu di ko di ko di ko indi fii coronavirus bi ñu ci nekkee métti na trop mais fi mu nekk nii daanaka génn nañ ci parce que wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax bu ñu muñee tuuti gën a góorgóorlu si mesure barrière yi rek dina jeex lu mel ni màggal am na fi bi ñu fi jugee aussi kenn newul ne am na fi ay cas yu am na yenn mesures yu bëri yu état bi jëloon ci tere nit yi si yenn dajaloo yi état bi dindi na ko donc dëkk bi commencé war na dox ni mu doon doxee loolu nag bu nekkee am na dëkk bi war ñoo mën a tax war ñoo mën a dàq ay ngir ay affaire u coronavirus ak yooyu ba pare en fait dafa am loo xamante ne dafa war a am mooy nit ki buy dem jongante ay mois à l'avance war na ko xam aujourd'hui état du Sénégal bu ñu paree seen budget ba dañ ko war a def ci ci local doyul mais dañoo war a jël arrêté date bi définitivement ni ci liggéey en fonction de date boobu parce que ñoom dañ ne woon au plus tard avril la ñu wax avril mais waroon nañu fexe nu ñu arrêté date bi nga xam ne ñu ñëpp ñu commencé liggéey tëngu si date boobu voilà mais euh, Fadilou yéen waa PASTEF est-ce que tey ci élection locale yi euh, jàpp ngeen ne fenn fu nekk am ngeen fa benn représentant boo xam ne war naa mën a gañe fi mu nekk. ah bien sûr parce que xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga politique dafa nekk ñu politique bi ñuy def dafa nekk politique boo xamante ne dafa décomplexé dafa dafa maanaam gëm sa bopp la ñuy def gëm sa bopp boo xamante ne li ko lal mooy góorgóorlu bu bari ak xam-xam ak yaatal parce que dañuy fexe ànd ak maximum de nit yoo xamante ne mën nañoo àndal bokk nañ suñu euh, ay idéologie tey gox yëpp ñu ngi fay liggéey mun naa ne on est représenté sur les. dans les 552 communes du Sénégal 45 départements yëpp ñu ngi fa représenté léegi li nga xamante ne moo am résultat yi euh, élection yi passé li mu wane mooy am na gox yoo xamante ne am nañu fa résultat yi exceptionnel am na gox yoo xamante ne résultat yi tane na mais am na gox yoo xamante ne résultat bi des na léegi nag booy dem élection locale parti bu mel ni Pastef ak li muy représenté tey Sénégal ak adhésion de masse yi xamante ne mi ngi koy am am na xamante ne ñu ngi dox di fëgg buntu jàppanteek moom ci élection yi di ñëw am na ñu bëri ñoo xamante ne duñ ko def bien sûr gis nga rek fan yii passé ku mel ni Toussaint Manga député la mhm. bokk PDS bind ne coalition bi ñu doon bëgg a gis mooy lu mel ni PDS ak euh, Pastef ànd ci élection yi loolu c'est des choses yoo xamante ne moom moom moom moom waaw rek moom ni mu ko defee noonu ni nga ko waxee noonu noonu loo bëree ci gox yi ñi nga xamante ne dañuy ñëw démarché Pastef pour ànd ak ñoom parce que xam nañu Pastef mu ngi dox ay jéego yu rëy ci ci ci ci euh, en direction des léegi li nga xamante ne moom moo am bu ñu demee ba nag mbir mi ñu egg ci Pastef mooy xool gox yi nga xamante ne leer na ko ni téye na ko foofu du soxla mu dem fa coalition mais am na gox yoo xamante ne bu fa demee coalition dina tax mu renverser ñi nga ne ñoo yoroon gox boobu di ko doxal loolu aussi mun naa ko def donc ay choix yoo xamante ne ñu ci eggee parce que incha allah dina apprécier après def ko. d'accord lu jëm ci élection locale yi ba tey euh, Fadilou Keita euh, dialogue politique bi waxtaanee nañ fa lu soxal euh, élection locale ñu wax leen léegi. Euh, xam nga bu njëkk mën nga nekk euh, tête de liste ba pare doo nekk maire léegi dañu wax ne ki nekk tête de moom mooy nekk maire euh, d'office ak yeneen poñ yoo xamante ni wax nañ ko waxtaane nañ ko si dialogue politique bi ak lu jëm ci mbirum costion bi ak parrainage bi nga xamante ni dindi nañ ko si yow loolu en tant que cadre bokk ci Pastef lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga démocratie bu ñu ko waxee moo di àq ak yelleef doomu aadama yi ñëpp mën see tolloo ñëpp mën see jot. tey war ñoo mën a dem élection yow nga bañ a dem élection pourquoi parce que amoo lu doy ci alal mais alal nekkul moom mooy définir qualité nit nekkul moom mooy wane ni nit mën na gérer dëkk bi loolu du loolu loolu mooy premier critère bi en tout cas donc dañoo war a fexe def ay euh, ay ay ay ay mesures yoo xamante ne ñu bëri dinañ mën a accéder si mbir mi mais parrainage am na ay njëriñ naam mais am na ay. gàllankoor yu baree baree baree bare boo seetoo parrainage bi nga xamante ne moom la dewoon si présidentielle yi dafa doy waar mais boo jëlee bii tamit charge bu méttee métte bu ñu teg parti politique yi la tey bu ñu ko annulé c'est une c'est une c'est une c'est une excellente nouvelle mais aussi lépp luy mesure yoo xamante ne day tax démocratie du mën a exprimer wu nu mu war a exprimer wu rek ñun ànduñu si d'accorduñ ci te nekkul loo xamante ne day jëmale Sénégal kanam moo tax léegi euh, ki jiite euh, liste bi nekk maire d'office loolu tamit lan moo ci sa xalaat non xam nga nga tey consensus rek lañ soxla mooy maanaam bu ñu nekkee ci dialogue loo xamante ne acteurs yëpp dañ koy déggoo la tey bu ñu d'accord ne kiy jiite liste yi mooy nekk maire loolu ça peut être problématique ça peut ne pas être problématique mais sama appréciation am su noonu solo parce que dama nekk ci benn parti bu nekk ci benn coalition te ñoom ils se font représenter au sein du dialogue mm-hmm. sama appréciation du ma ko mën a wax ndax mën naa ko wax mu nekk loo xamante ne du forcément ànd ak li nga xamante ne moom la parti bi décidé. d'accord jërëjëf euh, Fadilou euh, Keita mu nekk euh, membre ci cadre Pastef yi moom la ñu invité tey ci samedi ji seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu Fadilou Keita tey jii toll na wala romb nañ ci benn at. ci coowul 94 milliards yi ginnaaw bi Mamour Diallo porté plainte Mamour Diallo bi mu porté plainte Ousmane Sonko euh, ci 94 milliards yi tollu na ci at. mu nekk coow loo xamante ni euh, coow li bëri woon na waaye nag euh, ba léegi nii daal gis nañ ne mbir mi demul ceng dikkul mbay laar maanaam amul lenn loo xamante ni li si Sénégal yi doon xaar ngir mu leer. xool ba xam Ousmane sonk moom moo wax dëgg wala Mamour Diallo moo nekk ci dëgg ba léegi senegal yi amatu lu leen leer ci 94 milliards yi euh, te yéen itam déggatuñ presque ngeen wax si te mën na benn at procureur moom itam yënguwul euh, lan moo ci sa xalaat. waaw déjà si plainte Mamour Diallo ba mu bindoon ba nga fàttali bi nga ko bindee daf ñoo retaan lowoon lool parce que si plainte bi moom mi ngi ciy nangu ne mbir mi am na waaye mbir mi du woon moom kese loolu la bindoon ñun wër nañ plateau yi. man mi demoon naa fi jàkkaarloo ak ñeneen ak ñeneen war nañu plateau yi Sénégal yi dëgg-dëgg li nga xam moom moo am bi ñu leen expliquer li nga xam moom moo am coow yi dafa dakk ñun xam nañ coow yi du mujjee fenn te ñëpp génn nañ wax ne coow yi du mujjee fenn parce que euh, dossier boobu bu leen fàttali ne balaa ñu ko génn bi ñuy def conférence de presse Diomaye Faye wax na leen ne leen dossier bi liggéey nañ ci pendant huit mois nit nag bu liggéeyee pendant huit mois génne dossier day fekk ne pare na si dossier bi liggéey na ko ba mat sëkk mu soog ko génne Mamour dañ ko doon accusé di ko jiiñ bind plant dafa nekk la nga xamante ne moom moo am dafa ànd ak dafa utiliser position ànd ak ay doomu aadama yoo xamante ne kenn xamewu leen ci mbir yooyu noonu jël alalu askan bi ci lu tolloog 94 milliards et quelques justifié nañ ko wax nañ naka la ko defee boobu ba léegi plainte bu mu kii ñun xamu nañu du aboutir en fait xamu nañu du aboutir du am benn jeexital parce que mënul am dëgg suñu kaw au contraire dañoo sax déposer plainte si procureur bi xaar ko ba sonn nanguwul la bouger ñu jëm saisir doyen des juges déposer plainte ba pare constituer partie civile pour ñu mën a activer procureur pour mu mën a euh, pour mu mën a tax dossier bi avancé mais dossier bi mënul avancé parce que boo fàttalikoo ni procureur bi maanaam ci ndigalu ministre de la justice la nekk te ministre de la justice président de la république moo ko teg foofu noonu donc li neex président de la république moom la ministre de bien que am na ay pouvoir autosaisine mais du ci def dara donc loolu day wane benn yoon parti boo xamante ne amul moyen leader bi yorul ay milliards euh, yorul renseignement généraux yorul budget national yorul armée yorul dara loo xamante ne moyen wu état la teg benn dossier ci kaw table bi te état bi am jafe-jafe lool pour génn ci bi day wane nag beneen yoon que Pastef bu am solo parti bu am njëriñ la ci réew mi. ndax bàyyi bàyyi ko ni koy suivre dossier avocats yi ba léegi ñu ngi ci ñun la ñu waroon def mooy déposer plainte bi la ñu waroon def mooy fay caution bi déposer nañ ko fay nañ caution déglu justice la ñuy def suñu avocats yi ñu ngi koy suivre à la loupe lu ci mën di am ci évolution rek nañ ko yëg mais c'est pour dire que ne parti parce que dafa nekk parti bu am solo parce que tey lu mel ni 94 milliards nga jël ko mën ko luubal biir Sénégal ba pare waaji na leen si biir 94 milliards yi 46 milliards yi fay nañ ko ba pare ñëwaat encore ne leen sax bi def émission Pape Alé Niang ne leen si biir 94 milliards yi 93 milliards et quelques yi fay nañ ko ba pare.

tey Covid bii dina yóbbu lu ma 2 millions de personnes ci pauvreté am ñuy lekk am ñuy naan insécurité alimentaire mi ngi am mais doomu aadama mën a toog ci benn bureau sol cravate ñu lay. jox salaire bu baax di la fay salaire di la fay salaire bu baax di la dëkkal fu baax nga mun a jël alal Sénégal ci lu toll 94 milliards te du mujjee fenn dafa nekk loo xamante ne lu ñaaw la. te loolu kenn mënu ko rafetlu. waaw ah, mais mais Fadilou euh, yow yaa ngi wax euh, procureur wóoluwul euh, Ousmane Sonko déglu ko ci mbir mi waaye commission d' enquête parlementaire bi assemblée nationale wóolu na Ousmane Sonko wóolu na Ousmane Sonko usman Sonko en tant que député ñenn ñi sax dañoo jàpp ñàkk wuy ji gi Sonko ñàkk wuy ji loolu manque de respect la loolu tamit luñ mën a wax la. xam nga xam nga commission d' enquête parlementaire bi ni mu mujjee rek moo lay wan ni ñun on a bien fait bañ a dem foofu parce que ay affaire caaxaan la woon tey article 49 règlement intérieur assemblée nationale mooy wax ci commission d' enquête parlementaire naka la ñu koy tegee ak lan mooy mission ak la muy liggéeyee naka la koy liggéeyee maanaam assemblée nationale moo koy teg kuréel la boo xamante ne day ñëw leeral pour jox assemblée nationale fekk mu ngi liggéey li muy liggéey secret la ku ko wax ba ku benn baat boo xamante ne ko yoon day dal sa kaw comme ku dévoiler secret professionnel. code pénal day dal sa kaw ñoom ñu def seen enquête nee déglu ñuy déglu balaa ñoo jébbal assemblée na ba assemblée nationale décidé na day génne wala du génne rapport bi ñoom ñoom defi conférence de presse te déggoo lu mu la wax de dañ ne benn phrase rek benn phrase. boo ko ci waxee yoon day dal sa kaw ñoom en tant que député. ñu def conférence de presse ba pare seen rapport boo boo ko liiree di nga xamante ne ñoo dëggal ci biir que ne détournement am parce que amuñu yoo xamante ne dañ ko dañ ko ko dañ ko dañ ko validé maanaam affaire tàppale la woon waaye dafa encaissé xaalisu famille bi sans famille bi xam ko parce que ci encaissement yi man gis naa ko samay bët li ñu ci wax mooy euh, Tahirou day encaissé au profit de la famille maanaam alalu famille bi la Tahirou encaissé donc loolu lañu jël ñoom def ci seen ay deal te loolu nekk na loo xamante ne c'est pas des titres homologués maanaam dem loon justice ba justice d'accord ci ba pare ni ñu ko luubalee dafa nekk loo xam dafa leer te ñoom dañu ko ci seen rapport boobu ñu def mais rapport commission d'enquête parlementaire ak assemblée nationale boo xamante ne dañuy voté ay loi sans débat assemblée nationale boo xamante ne yuuxu ak saaga assemblée nationale boo fa waxee xam-xam dañu lay sonal nekk loo xamante ne mun nañ ko jox benn solo bi au Sénégal. d'accord euh, jërëjëf euh, Fadilou euh, Keita bokk ñu fàttali ne moom membre la ci cadre Pastef fii du ñu jógee assemblée national ndax fan yi dafa am benn député boo xam ne coow daal na koy topp mu tudd Aline Dumburu Sow dafa yëkkati ay kàddu fan yi daal di wax ne ñii bañ ñetteelu mandat ngir Macky Sall toogaat ci bopp réewum Sénégal nañ jël jaas yi janoo ak ñoom mu nekk kàddu yoo xam ne ñu bari naqarlu nañ na ko yow bi mu ko déggee lan moo nekk sa xalaat sa réaction. waaw loolu choc la woon rek comme tout le monde parce que xam nga nit Sénégal yàgg nañ fay jàpp nit ci loo xamante ne moo gën a moins grave téeméeri junni yoon nit caricaturé na président ñu jàpp ko tëj ko dessin bu ndaw rek ñu jàpp ko tëj ko te président boobu peuple bi moo ko fi teg te waa ji peuple bi la ne benn parti bi nga xamante ne d'accord troisième mandat bu ñu ca eggee ñu bëgg a taxal seen bopp nañu jël jaas yi dóorante ak nekk loo xamante ne dafa graaw surtout ci koo xamante ne dafa nekk ci pinc rawu ndéew yi koo xamante ne dafa am nombre tànk c'est extrêmement grave bu nekkoon beneen parti la nekk bu nekkoon beneen ou responsable la beneen parti dañ koy jël entendre ko dañ koy jël tëj ko mu nekk loo xamante ne violence la fi woote te violence amu fi njëriñ politique bi li ñu si soxla mooy débat d'idées waxi xam-xam wax loo xamante ne day jëre askan bi mais affaire doole ay xeex ak lu ñaaw ak ay saaga amu fi benn njëriñ. ànd xaar si assemblée. non assemblée nationale li ma doon xaar mooy au moins ñu entendre ko su laajee su laajee su laajoon tey jii ñu muri ñu muri mbalaanu kiraayam ñu def ko. parce que defal nañ ko Khalifa Sall defal nañ ko ñeneen tey nit koo xamante ne démb rek bi ñu ko gisee assemblée nationale bi ñu wane image moom mi ngi daw parce que bëggul caméra jël ko Moustapha Niasse aussi comme d'habitude def na déclaration bu ñuy décevoir parce que mi ngi naan kenn du wax assemblée nationale ni muy doxee ay ñoom duñ ko entendre ak affaire yu mel noonu loolu dafa nekk loo xamante ne ñun rafetluwuñ ko si koo xamante ne dafa am ndomba a li nga ko war war a teg waaw ah, tekki ma ah, tekki na ma tànkam. Ah, mais mais euh, ñi nga xam ne ñooy waa APR ñoom Macky Sall euh, ñaawlu nañ aussi kàddu yooyu ba génn ci communiqué. waxam nga balaa ñu koo ñaawlu dafa am ñenn si ñoo xamante ni dañoo njëkk ñëw dëggal ko balaa ñu koo ñaawlu dafa am ñenn si ñoom dañoo ñëw ne li mu wax garaawul dafa juum ak ay boor booy wax pël booy wax jaasi jeeg di ko tuddal daal ay ay lay yoo xamante ne amul benn solo mais ku mel ni nit ñoo ñu xamante ne dumburu boobu li mu wax noonu ak gravité bi mu am pour man lañu ko doon teg daan parce que gëm naa ne bu nekkoon ci opposition bi la bokk dañu koy teg daal. Euh, ba tey ñu des ci assemblée nationale ci xibaar yi ñu jot mooy euh, xam nga coowul 750 milliards yi nga xam ne moom lañu doon wax ne euh, moom lañ def ci mbënd mi te ñenn ñi weddi ko Ousmane Sonko bokk na si ñi nga xam ne neen li ñu wax ne dugal nañ ko ci xaalis ci mbënd mi loolu amul ba ñenn ñu doon sàkku euh, ñu si mel ni PDS ñu ubbi ci enquête parlementaire assemblée nationale li ñu ci mujj def mooy ab euh, mission d'information ba am na yenn ministre yoo xam ne jot nañ leen a déglu ci ci wàllu woowu euh, ndax yow Fadilou Keita sa xel dal na que ne assemblée nationale dina leeral coowul mbënd loolu. non li ma leen njëkk a wax mooy ñun ba ñuy wax ni ñoom 48 milliards lañ def ci mbir mi boobu bu ñu koy wax. ay rapport lañu sukkandiku pour wax ko am na benn rapport bu ONAS génnee boo xamante ne elle euh, il date de de de de juillet juillet 2019 sama juumul mais aussi am na rapport d'exécution budgétaire yi nga xamante ne am mhm. yu Cour des di publier yooyu aussi boo ci xoolee nga def recoupement di nga mën a xam lan lañ dépensé effectivement ci budget donc am na éléments yu bëri yu ñuy saytu aussi pour xool est-ce que réellement ñoom la ñuy wax moom lañu ci def ñu rapport bi ñu gis 48 milliards yooyu ñu leen wax loolu moo ci nekk léegi la nga xamante ne moom moo am gis nañ ay euh, lu bëri loo xamante ne dugal nañu ko ci xaalis ci loo xam ci mbënn bi la war a dem mooy loo xamante ne ay banque mondiale la jógee ay financement yoo xamante ne ay bailleurs étrangers ñoo ko fi teg mais est-ce que réellement def nañ ko ci mbënd bi Mansour Faye dégg wax bi euh, wax na ba tudd lu mel ni 500 et quelques milliards mais moom ci boobu ministre bi xamul ñaata la mu nekk loo xamante ne dafa doy waar trop yow miy dépense xamoo sa ñaata nga dépense dafa yéeme mais aussi président Macky Sall dégg nañ bi coow li amee mun nañ ko nañ def rapport président Macky Sall ani yeen corps de contrôle yi nga xamante ñoo war a contrôler ministère yi de sorte que moom dafa war a am rapport chaque instant donc bu laajee rapport loolu aussi nekk lu ñu jaaxal pour ñëw si commission d' parlementaire comme ni ma la ko waxee xam nga commission boo xamante ne ñu ko composé seen mandute ñëpp xam nañ ni en fait parce que tey ku ñoom ñu défendre la ku farul ci ñoom ñu xalab la tey jox naa exemple ni ñuy defee commission d' ci affaire 94 milliards yi secret bi war a nekk ci rapport bi defuñu ko si ñooñu tey bu ñu waree bu ñu waree enquête aussi gëm naa ne li ñuy déglu ak li leen di wax du nekk loolu la ñuy def si document yi du ñu def sincérité bi nga xamante ne moom la war a am incha allah du ko am mais ñun aussi bu ñu fàtte ne ñoom lépp lu ñu fi teg comme rapport bu ñu sincère def si ay chiffres ñun aussi a génn yoo xamante ne bu ñu ko jëlee dañ ko confronté ak ñoom lu ñuy def pour euh, ne Sénégal yi nemmeeku nañ ko yéen waa euh, dafa mel ni yéen da ngeen def euh, loo xam ne ci administration bi bëri nañu bokk Pastef nag ñuy liggéey ci administration bu Sénégal yéen ñooñu ñoo leen di jox documents yi ngeen di génne wala preuve yi te loolu tamit est-ce baax na ci administration bi ndax da ngeen di génn ay rapport loo xamante ni parfois sax dafay confidentiel ah man de gisuma ñu rap ñu ñu génne rapport bu confidentiel rapport yi ñuy génne yëpp dafa nekk loo xamante ne c'est disponible sur les sites tey jii corps de contrôle yi gars yi ñu ngi ciy wax mais corps de contrôle boo demee seen site yi di nga ko fekk ay rapport mais rapport bi rapport bi nga wax nii sànq fan la disponible. rapport juillet juillet. non rapport bi nga wax ci inondation yi 48 milliards yi fan la disponible. non loolu mi loolu mi ngi si mi situ kii bi sax mi ngi situ ONAS rapport juillet 2019 la mi ngi kese moo tey boo xoolee ADM bi nga xamante ne Cheikh Issa moo koy gérer moo yoroon di piloter projet yaa ngi comprendre mhm. ministère de am na lu mu piloté donc ministère am na rapport yu mu mën a génne ADM am na lu muy génne am na lu ONAS di génne am na lu yeneen service yoo xamante ne voilà donc c'est des rapports yoo xamante ne boo duggee si tey boo duggee mhm. tey boo duggee par exemple ci surtout BOS PSE mu bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent mhm. façon rapport kii bi yëpp mi ngi fa plan d'action prioritaire bi ñu ko doxalee mi ngi fa boo duggee rapport DPE finance di nga fa gis façon rapport bu nekk ci lépp lu ñuy dépensé xaalis Sénégal ci planation prioritaire rek et cetera et cetera lépp disponible léegi nag rapport day disponible mais exploité ko du ñëpp ko mën exploité rapport lu mhm. ñëpp ko mën tant maa ngi lay wax waxu Kaolack par exemple man maa ngi liggéey ci ay chiffres yoo xamante ne boo duggee tey si surtout surtout surtout ANSD mhm. Kaolack am ngay information ci population bi ci agriculture ci élevage ci ci lépp de 2012 ba 2018 rapport 2018 bi fin ju euh, kii euh, mois de kii si quelques mois il y a quelques mois la génn fii en 2020. Mm-hmm. donc c'est pour dire que tey su ma neexoon éléments yu ma soxla yëpp ci Kaolack ci population bi naka la évoluer si élevage su mu toll si agriculture bi nu mu toll si lépp nu mu évoluer dama koy am ci rapport yooyu noonu léegi nag du ñëpp mën a jël rapport 2012 ba 2000 ba 2020 da ko exploité pour génne chiffres yi pour am loo xam te ni nga ko wax sénégalais ne fii lañ jóge fee lañ dali pourtant li leen defoon ci xaalis. waaw d'accord mais mais mais li ma bëgg a wax mooy Pastef dafa am ñuy liggéey ñu baree baree bare Pastef ci administration bi ñu nekk ay impôt et domaine ñi nekk feneen ak feneen. est-ce que du ñooñu di fa liggéey ñooy jox Ousmane Sonko wala di leen génneel di leen jox yenn information yoo xam ne yéen da ngeen koy jël di ko def arme parfois. ñi nekk APR ñu nekk APR ñu ci bëri. waxuma la ci administration yi lañ nekk de mais ñooy DG wu administration yi ñooy directeur administration yi ñi gën a ponkal ci administration bi mooy ñi nekk APR di def politique di défendre seen ay affaires di wax seen ay chiffres ñun gisuma kenn koo xamante ne la ngay liggéey yaa ngi koy jël di ko teg ci kaw tali bi man loolu mosuma ko gis gisuma ko ci gaa yi. Mhm. est comme mais bu leen di fàttali du question que da nga nekk ci état wala da nga nekk ci ci ci ci ci ci mouvance non non ci ci mouvance présidentielle. Ah. am nga droit politique. ku nekk opposition. amul droit politique affaire bi demeewul noonu de. waxuñu ah non dama lay expliquer rek parce que parce que fan yi dama seetlu ñu bëri. même Diomaye maa ngi dégg laaj nañ ko ci émission bu mu def ak Maïmouna Ndour Faye. ne ko non maa ragaloo ñu dàkk la ak maa li non mais attends faut que les gens arrêtent fii on en démocratie. ku nekk am nga droit gëm li nga gëm ku nekk am nga droit militer fi ngay militer. ñii ñu ngi nekk sax magistrat Issa Sall bi ñu coow nii. dafa nekk magistrat boo xamante ne dañu ko tere mu politique. Mhm. seen loi organique bu 2016 bi modifié 99 bu 99 bi article 32 bi dafa ne bépp magistrat benn magistrat amul am droit am ay activité politique. mi ngi am mouvement bu tudd am dem mi ngi politique à Mbour yaa ngi fii si YouTube yoo xam ne taxaw ni sol yére AP def ay déclaration am dem na ba Cour des pour ne ko na démissionné su nekkee dafa bëgg politique. am na yoo xamante ne ñu ngi politique te ñooy ñooy fonctionnaire yi gën a mag ci état. est-ce que ñun ay cadre lañ fi ñuy liggéeyee am na ñeen ñoo xamante ne ay directeur lañ fi nekk am ñoo xam ne ay chef d'entreprise lañ ñun tamit dañoo bokk ci langue politique yi mais ànduñ ñoo président Macky Sall gis-gisam loolu suñu droit la te dañ koy dañ koy revendiquer te dañ koy jël ba mat sëkk léegi nag dañ ko li ñuy def dañ ko war a def ak professionnalisme ak sérieux mais maanaam liggéey bi nga xamante dañ koy liggéey ci administration amuñu droit jël ay documents yoo xam ne c'est des documents yoo xamante ne suñu cadre liggéey la di ko exposer su la place publique loolu ku ko def aussi yoon mun naa dal sa kaw te ñun en fait defuñu loolu donc dañ koy def rek ci xam-xam d'accord euh, jërëjëf euh, Fadilou Keita kon yéen daal léegi coow li nga xamante ni moom moo am ci euh, mbirum mbënd mi li nga si wax noonu ak yéen li ngeen jàpp mooy li état bi wax moom la ci dugal jàpp ngeen ne dugal ci loolu mais ñu wax tamit ci beneen coow. li ma li ñu ciy wax mooy non seulement dugalu ci loolu mais liñ ci dugal képp koo xamante ne yoroon nga exécution yoroon nga pilotage di layoog askan bi parce que boo gisee coow Mansour Faye bu bëri bii yëpp bañ ne ko pour mu leeral la commencé du dem wuy ji kii du dem wuy ji kaa alors que def na 4 ans et 9 mois ci ministère de l'hydraulique et de l'assainissement day wuy ji par force suñ ko woowee parce que bi mu defaatee conférence de presse sax dellu na ci affaire parce que mënu fay yore ministère bi gën a ngand après ministère de l'éducation yore ay maa ngi gis ay autorisation d'engagement am ci budget bi c'est presque milliards euh, euh, gën a ngand ci état yi ñuy def daanaka moom moo ko yore muy benn def 4 ans et 9 mois ministère de ñu dépensé ñu dépensé ñu waroon exécuter programme décennal waaye aussi

mais devoir la devoir mooy loo xamante ne dafa tegu sa ndodd te da ko war a def donc dafa war a rendre compte. d'accord léegi euh, dégg nañ tamit Ousmane Sonko di ko tuumaal si ay euh, gorom njiitu réew mi ak euh, yow la Macky Sall bëgg a def dofeem loolu moom ay tuuma la yu Ousmane Sonko wax noonu la wala yéen fan ngeen ko teg. non dafa am loo xamante ne aussi nit ki da nga def ay recoupement rek xam nga borom xel yi borom xel maanaam ju ñu na borom xel xam tey ku mel ni Mansour bu taxawee diggu Sénégal nga dégg ko moom kese muy coow parce que coow li muy coow ni moom moo koy coow déggoo benn ministre bu ko coowlee déggoo benn député bu ko coowlee man dégguma benn directeur général société bu taxaw fii ni même bu bokk APR bu koy coowlee mu nekk moom kese dafa wét ci li xam ne mooy coow ñu xool gis ni li mu géré ci ay milliards bari na lool bëggul rendre compte mu wax na ko publiquement ñu seet li mu géré bari na euh, euh, président la république tey nee na moom dafa gëm ci li mu wax bonne gouvernance bien que wanewu ko jëfewu ko mais mu am fit bokk ci gouvernement nekk fa njiit nekk fa chef taxaw ne su ma of nag wooyu duma dem mu nekk loo xamante ne c'est extrêmement grave ñun léegi dañoo sampoon laaj pour xam kii li muy wax nii ban fit moo ko may pour muy wax lii bu ñu xoolee gis nañu bu nekkee APR ëpp fa xam-xam ñoom Mimi Touré seen background moom mii amu ko ABC amu ko Amadou Ba amu ko ñeen ak ñeen ñu nekk biir APR ñoo ko gën a nekk ay kàngam téeméer yoon ci expérience laa la wax ci liggéey ak ci background boo xamante ne am nañ ko ci fiñ jaar ci wàllu liggéey ak affaire mel noonu donc ñun dañuy li ñu li nga xamante ne moom la ñu constaté mooy diw li ko may fit bi li ko may audace bu mu taxaw di waxee li sénégal yi parce que dafa nekk gros président de la république kese parce que du ci xam-xam du ci ancienneté du lu mu jaar ak sénégalais xamante ne dañ ko ciy naw wala affaire yu mel noonu loolu moo tax président Ousmane Sonko peut euh, tamit euh, euh, yéen waa PASTEF dañuy faral di gis ngeen di def ay dànkaafu naan dina mos a leeral tooyetaa dina leeral loolu tamit ku koy dégg day jàpp ne sax yéen élection yi di ñëw yéen yéen a koy gagné. non xam nga ñu ngi ñaan yàlla. élection yi di ñëw incha allah ñu gañe ko bien sûr loolu lañ koy ñaan yàlla. mais menaces yi ngeen di def. yàlla loolu du xam nga tey bu ay texte waxee ni crime économique amul prescription alalu askan bi ku ko jël def yenn affaire yu grave ci alalu askan bi ba ba ngay dee mu ne la woo ne kaay moo tax di boo xoolee dossiers yu mag yi fi am Sénégal ay 7 milliards de Taïwan. yu mel noonu da ngay ba si yàgg rek ñu yeewaat ko. parce que du am prescription maanaam xam nga tey am na loo xam boo ko defee sax boo toogee 10 ans mënatoo dem justice parce que weesu na loolu la ñuy wax c'est prescrit mais crime économique ba Ilaah Medine da ngay tontu suñu la soxlaa. ba pare tey sunu yaay di jaay beñe di jaay gerte caaf ci mbedd mi ku ci nekk boo demee boutique ba jënd benn almet yaa ngi fay impôt yaa ngi fay TVA impôt yooyu yëpp la ñuy dajale biir Sénégal jox ko ministre bi jox ko président de la République votal ko assemblée nationale mu koy exécuter néew di doole yi di fay seen xaalis di la jox ngay exécuter mais boo exécuter da nga war a layoo li tax munoo nanguwoo layoo wala buggoo leeral parce que dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw ci état leen lañ ko def mooy objet wu enrichissement dañuy gis koo xam ne daan asalaamaaleykum tabax ay kër yu dul jeex nekk multi multi milliardaire alors ko seen salaire mayu leen ko amuñu entreprise bu koy liggéey ba pare kenn xamul daal en tout cas xaalis ba fu muy fu muy jógee mais nag tey dafa jot ñu jël dëkk bi di ko gérer noo xamante ne képp ku ci nekk da ci gis sa bopp mu ñoon nangu ay doomu aadama yoo xam dañuy ñëw nekk ay multimilliardaires en un temps record léegi nag rendre compte du ñun ñoo ko wax de texte yi ñoo ko wax que nit bu gérer déjà assemblée nationale dafa am prérogative contrôler budget bi naka lañ ko exécuter mais aussi dafa am ay corps de contrôle yoo xamante ne ay kilifa ñoo fa nekk ay kàngam ñoo fa nekk IGE cour de comptes contrôle financier OFNAC nag et cetera et cetera yooyu yëpp dañ ay kuréel yu dul jeex la ay kàngam fay liggéey ñoo leen di fay sénégalais ñoo leen fay tous les jours li fay mooy pour ñu saytu la nga xamante ne ñu ngi koy deful ñu ko ci alalu askan bi bu ñu defee rapport jox procureur ñi jox président président jël yëpp denc procureur aussi ñu teg ko foofu du activé wu du def loolu ëllëg dañu war a génn xaalis boobu fu ñu koy def parce que xaalis boobu dafa bokk ci xaalis bi war a defar Sénégal. d'accord mais mais xam nga euh, Fadilou yéen waa PASTEF euh, surtout seen njiit Ousmane Sonko li muy faral di wax euh, dina rendre compte danañ ko jël yóbbu kaso dafa bari te yéen tamit ñaawlu ngeen kàddu Dembourou Sow yi Aline Dembourou Sow yi mais. Euh, bien vrai que ñun sax dañ koy ñaawlu mais yéen tim dañu leen di faral di tuumaal ay ay régionaliste ku si mel ni Ousmane Sonko euh, fu ci mel ni Casamance yéen lu mel noonu tamit euh, wàllum waasoo dañuy wax ni yéen bokk ngeen tamit ñoo xamante ni tey dañ koy fësal. xam nga xam nga Ousmane Sonko dégg naa ko mu wax ne dina rendre compte mais jàpp yóbbu kaso moom dégguma ko mu koy wax dégguma mu wax ko wàllu waasoo loolu bon soo ma kontaan parce que Ousmane Sonko dafa dem ak benn façon franchise boo xamante ne gëj nañ ko gis si homme politique. Casamance bi mu dëkk dem fa def meeting am ci élection yi passé ñëpp génn mu fees dell extraordinaire dafa jël kàddu ne leen soo leen di ànd ak man wala soo leen may votel bu leen ma votel parce que doomu Casamance la bu leen ma votel parce que seen doom laa bu leen ma votel parce que sama papa ak sama yaay fii lañ juddoo non da ngeen di voté ci programme bi xam ne kii li mu bëgg doxal biir Sénégal amal na njëriñ askan bi parce que en réalité li mu bëgg présidence la de nekkul pour nekk maire mais présidence la mooy maanaam ñëpp la war a njabootee donc dafa war a am taxawaay boo xamante ne moom lay am foofu taxawaay bi mu war a am foofu moom la am war am biir Dakar moom la war a am biir a am fépp ci Sénégal donc mu nekk koo xamante ne sincérité boobu maanaam doo ko gaaw a gis te Dumourou Sow ñu koy protéger ñu si bëri ay ay ay kii lañ ay mbokkam lañ mais yooyu yëpp ay waxu fraction lay indi ay affaire waaso dafa nekk loo xamante ne c'est très très très sensible fii ñun ñëpp. ay mbokk lañ man sama yaay direct séeréer la sama maam tukulóor la sama maam côté papa papa papa aussi pël la euh, papam nekk bambara donc lépp lañ ñun lépp donc kenn ku nekk koo ci jël rek da nga bokk fu bëree bëri bëri biir Sénégal donc wax yooyu nekkul loo xamante ne vraiment am na solo ba tax ñu war seet daal. d' accord jërëjëf euh, Fadilou Keita yow nga bokk euh, ci membre euh, cadre parti PASTEF yow la ñu invité tey ci sunu émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h Fadilou ndax mën nga ñëw ci li nga xamante ni tey mooy vacances yi ngeen doon def. ndax xaw ma sax yéen ak président Macky kan moo si toppandoo moroomam. Ah. ndax def na fi ay tournée Euh, tournée euh, agricole xaw ma tournée économique. tournée économique yéen itam ñu gis ngeen def seen seen tournée yooyu te yéen yoru leen état joxewu leen jiw euh, lu waral lool. xam nga ñun dañoo woote ni dañuy def politique autrement politique bu yàgg da ngay utiliser nit ci rek boo yoree xaalis ñëw jox leen ko élection bu jotee ñu voté la. boo jugee ci élection bu la neexee soxlaatoo leen dara da ngay bàyyi ba élection jotaat rek nga ñëwaat génn leen xaalis. tey am na acteurs politiques yu bëri xamante ni kenn déggu leen parce que am na ñoo xam ne dañuy mere population bi dañ naan comme que ñii alal rek lañ gëm faalewu ma leen dama leen teg foofu bu élection yi ñuy daal ma génn sóob non ñun dañoo choisir accompagner peuple bi erreur dina am am ñoo xam ne dañuy jox leen xaalis ñu voté mais dañu xam ne ñii comprendre guñu bu ñu comprendre am na loo xam ne ñu ko def parce que ki ngay jox xaalis mu voté la ëllëg mooy toog 5 ans 10 sa kaw bopp def lu ko neex sa doom su fajoo feebaree du mën a faju te boo grévé yow la ñuy dóor ñoom seen doom yi nekk ñu fi ñu ngi donc dañuy bokk si ñi nga xamante ne dañuy yee population bi ci ñu xam naka la ñuy war a gën a mën a euh, considérer seen seen seen seen ay seen ay seen ay seen ay kii seen ay seen ay seen ay doxalin ci biir ci biir ci biir ci biir société bi léegi bi ñu indee doxalin bu bees dañ ne du ñëw rek di wax ay kàddu kàddu kàddu mais dañuy indi ay programme yu bees vacances agricoles patriotiques yi dañuy woo jeunes yi mag ñi ndaw ñi sénégalais yi ñu dellu ci mbay parce que dëgg-dëgg mbay mooy li nga xamante ne moom moo mën a développer Sénégal président Macky Sall sax gis nga ko ni li mu defoon ci budget mbay mi 40 milliards ministère de l'agriculture yokk na ko 20 milliards neen day jéem a góorgóorlu pour kii mais ba léegi loolu taxul mu avancer parce que doole bu ëpp solo lañ ci war a def parce que mbay mi mooy mobiliser maanaam doomu aadama yi boo jëlee Sénégal lépp moitié population bi ci mbay la ñuy yëngatu te pourtant mbay moom bu tuuti lay génn loo xamante ne day contribuer ci PIB loolu nekk loo xamante ne nekkul lu normal bu nekkoon accès ci suuf si yombal nañ ko bu nekkoon matériel yi am nañ ko bu nekkoon ñu ngi bay au-delà de 3 mois parce que 3 mois lañu am ci weeru taw mais ay point d'eau bu amoon ñu mën a bay ci noor bi dina tax tey affaire autosuffisance alimentaire yi ñuy wax yëpp du nekkati problème ñun si loolu lañ taxaw ba pare gis contrat yi nga xamante ne ak yenn relation yi nga xamante ne état mi ngi koy am ak yenn pays étrangers yi ak yenn institutions yi tey lu mel ni banque lu mel ni G8 am na programme bi ñu koy doxal biir ñoom seen ay entreprise yu mag yooyu nekk bitim réew mën a dugg biir Sénégal di liggéey fii moo tax ngay dégg ñuy laaj ay 20 ay 200 hectares fële ay 500 hectares xaaral ma ñëw rek suñu fa duggee aussi dañuy not sunu ñu nga xamante ne ñoo nekk ci wàllu agro business ak nga xamante ne ñoo nekk ñooy baykat yi di commerce ñoom loo xamante ne c'est pas équitable ñun bi ñu gisee loolu lañ nañu proposé benn schéma boo xamante ne dañuy incité yi ñu bay mais bu ñu bayee aussi ñu ërtal état ba pare prévoir yenn système yoo xamante ne dañuy mën a transporter li nga transformer li nga xamante a gën a yokk suñu valeur ajoutée yokk koom-koom boo xam ne dañ koy dugal ci ah, euh, tournée yi ngeen doon def euh, euh, gis nañ leen ci ci foofu. Ah. kon jàpp nga ne doon ay xumbal wala yéen a a ñàkk bañ a daal fës yéen waa PASTEF. non léegi wax ñu njëriñ la xam nga tey par exemple tey bu doon tournée bi Macky Sall doon def dem na ci baykat yoo xam ne jox na leen jiwu ñu bay bien vrai que alalu réew mi la jox na leen ay machine ay ay ay matériel euh, mais yéen bu ngeen demee ci ci àll bi ban apport nga mën a indil ki nga xam ne bàyyi na ba mbayam toll foofu. waaw xam nga ñun bul fàtte ni demuñu rek fekk ñi nga xamante ni dañoo bay seen tool de ñun ñoo créé projet bi projet bi ñun ñoo ko monté ñun ñoo ne dañoo war a bay ren ay sénégalais yu nekk bitim réew ne non man dinaa joxe am naa fee benn toolu 110 hectares. am na fee 3 hectares am na fi 1 hectare 2 hectares sra sra et cetera ba ñu am 400 et quelques hectares daal di koy bay waa Pastef tool yi Pastef bay la ñuy dem xooli en priorité après am nañ suñuy sëriñ ak suñuy am du jàmbi ay membre Pastef yoo xamante ne seen ay famille aussi wala ñoom ci boppam am na tool ñu bay ñu dem fa. ba pare bu ñu demaale ci localité yooyu xam nga local kër doo kër kilifa doo fa dugg def la neex génnaat bu jëmee ci localité yooyu fekk ay sëriñ yu baax. suñu ay kilifa diine yu baax dañuy dem profité seeti waleen mu nekk benn période de coup mais dama lay wax rek ci affaire topp bi ngay wax ñun bi ñu commencé récolter ci le président Macky Sall wax ni dafay def tournée économique fu mu yem bassin arachidier bi la yem suñu saalum bi la yem dellu si est-ce que déggaat nga ko mu dem fenn demul fenn ñun ñu ngi continuer suñu tour ba léegi de bi ñu avant bi ñu indee suñu vacances agricoles patriotiques un mois demi ko moom mu seen vacances agricoles est que na nga dégg seen vacances agricoles kenn di ko doxal kenn la mobilisé wul. ba ñu bindee livre solution moom ci la bind Sénégal au cœur ba ñu bindee chronique euh, pétrole et gaz chronique d'une spoliation ci la bind conviction républicaine bi ñu nee dañuy créer benn euh, fonds d'investissement pour xaalis diaspora bi tey boo bëggee defar autoroute à péage doo dem fenn di àbb 60 milliards non non da ngay jël 6 millions de sénégalais. 6 millions de sénégalais. nga leen ku nekk na indi 10 000 francs. 6 millions de sénégalais ku nekk na indi 10 millions de 10 000 francs 10 bi nga biyee 10 000. 6 millions de sénégalais bu koy nekk indi 10 000. 60 milliards mooy 60 milliards. ñun xam-xam boobu la ñu am pour doxal ko biir Sénégal su boobaa booy fay ñi financé ñi financé projet bi sénégalais yi ngay fay. mu nekk xaalis boo xam ne day dox biir Sénégal bi ñu ko waxee rek moom dafa ne non damay créer banque de la diaspora ma ne banque de la diaspora ba tey ba sànq benn banque de la diaspora. a ngi noonu xam nga boo yoree machine état suñ ko mën a doxal parce que dafa laaj ay autorisation ay agrément bancaire et cetera mais fu mu nekk nii ñu ngi am benn système de financement yoo xamante ne ay financement yu leew la yu leer nañ yoo xamante ne dañ koy def te ñu ngi koy liggéey ak waa diaspora muy bokk naa deux nga xamante ne fu nekk ci àdduna bi mën nga faa contribuer. d'accord mais mais mais mais euh, Fadilou est-ce que tey jàpp nga ne tey agriculture euh, mbay mi ak jafe-jafe yi Sénégal am ndax dégg nañu président Macky Sall. nee na euh, pour suñu relance économique bi euh, dafay sukkandiku ci mbay mi ak ci ak ci sàmm gi woon na sax ñi nga xam ne ñooy euh, ñooy secteur privé bi ngir ñu dugal ci seen loxo neena fii ak 2023 sax taux de croissance dana dem dana dem plus de 13 pour cent est-ce que réellement jàpp nga ne nii ñuy doxee nii ci wàllu mbay man naa mën naa suqali Sénégal. non dafa des déggoo lu mu la dafa des parce que xam nga mbay mi dafa may jafe-jafe fan yii paase rek yaa ngi dégg dossier Ndingler Ndingler bi nga xamante ne. ñun tamit ñu ko tegoon ci kaw table bi à travers Diomaye Faye ay baykat yoo xamante ne nit koo xamante ne biir Dakar la nekk am na doole trop macha allah am na moyen xëy di njëkkante ak ñoom ay suuf yoo xamante ne ñoom ñu ngi ciy bay ça fait ay 30 ans 40 ans mu nekk loo xam dafa doy problème mu accès foncier suuf si ngay bayee nga accéder ci ñun suñu programme dañ ne dañuy fexe ba baykat yi suuf yi dañ koy moom soo moomee suuf ñu defal la titre mu nga dem banque boo ko déposé garantie kii hypothèque ko mu ne la jox xaalis mu la joxee xaalis nga bay mais boo génnee àdduna sax sa doom da koy doon mën a continuer affaire bi donc suuf yooyu dañuy fexe nu ko gars yi muumee muy benn mais aussi matériel bi ñu fexe jënd ko prix normal parce que ñu ngi def marché yoo xamante ne ni mu fiy ñëwee xam nañ ni am na luubal bu bëri parce que loo jar ay 8 millions ñu bëgg la ko jaay ay 32 millions mhm. loolu problème la mais aussi matériel bi dem effectivement ci ña nga xamante ne ñoo ko soxla te Macky Sall nee na dépose président Macky Sall nee na distribué na a 2000 laa la wax de tracteur parce que 45 département la. Mhm. foo dox da nga war a. maanaam département bu nekk war na am 4 tracteurs wala 5 tracteurs. Mhm. loolu bon nekk na loo xamante ne ñun gisuñu ko donc dafa am beneen affaire aussi bu ci am. mooy loo bay seen tournée bi gis leen tracteurs yi. man de tracteurs yi ma gis ah kenn new ma état moom de gis nañ ay quelques tracteurs peut être mais ay doomu aadama ñoo ko moom yoo xam te ne dañu yore seen ay exploitation yu mag mais mun naa am ñoom bay bu ñu bayoon li ñu soxla yëpp li ñu soxla yëpp ba nga xamante ne mën nañ ci jëlagum mën nañ ci jëlagum dundee ci moo tax ñu ñuy def effort ba pour au moins sénégalais yi am loo xam ne ñoom dañu ko dundee parce que insécurité alimentaire dafay am est-ce mm-hmm. tey am na rapport bu génn bu organisation internationale du travail génne ne Sénégal mooy ñetteelu dëkk mi nga xamante ne chômage fii la gën a ëppee mm-hmm. ñetteelu dëkk mm-hmm. xam nga loolu c'est extraordinaire te yaa ngi am jeunesse boo xamante ne dañoo bari marché ñoo ëpp ñoo ëpp si réew mi jeunes ñoo ëpp yaakaar naa on a on a en fait pour cent de la population à moins de 30 ans ñoo ëpp si dëkk bi donc ñoo xamante ne dañu waroon utiliser force bu extraordinaire la parce que Europe li ñu am problème bi ñu am ak Amérique mooy seen population vieillissante dañoo commencé màgget kenn amul jeunesse bi Afrique am donc loolu da ko war a exploiter ci ay jumtukaay yu bëri xiir leen ci mbay mi mais mbay mi aussi nekkul da leen yóbbu mbay a am tey boo yoree di ko jaay prix bi nga koy jaayee bokkul ak tissu bi ñu ñaw ko ba lon ko suñ ko ñëwee ba lon ko ki koy jënd ay 200000 la koy jëndee yow boo ko jaayee 100000 nga koy jaayee mën na am léegi nag transformation boobu ñu war a def maanaam industrie yooyu ñu war a teg pour mu transformer moo mën a tax tey Sénégal am valeur ajoutée dëgg am alal dëgg te loolu noonu mënu am parce que politique industrielle bi war a toftalu ci wàllu agriculture ba léegi nii amaguñ ko Sénégal. d'accord mais am ngeen benn programme tamit euh, jëm ci euh, ay cours de vacances euh, cours de vacances yooyu ndax mën dellu si si programme bi. waaw programme am xam bi ñuy lancé vacances agricoles patriotiques dafa am lu ñuy wax les week-end citoyens maanaam ku nekk day jël ci patriote yi ku nekk day jël sa temps ci week-end man par exemple su ma nekkoon professeur mathématique damay jël sama 2 heures de temps wala sama 3 heures de temps ci biir semaine bi fexe sama gox ma jël ay xale yoo xamante ne dama leen di jël leen jàngal. donc kese lañu bokk. non non non sa gox laa wax rek sa gox. Mhm. tey mu ngi bokk Pastef mu ne bañ a nekk ku mu neex mu nga ñuy jàng loolu moom loolu moom amul amul distinction mais waa Pastef euh, waa mouvement wu kii euh, jàngalekat yi nekk ci ñoom ñoo porté projet boobu maanaam ñoom ñooy décidé ne dañuy jàngale xale yi nekk ci gox goxaat yi ku nekkul Pastef boo ko APR aussi boo ko defee lu baax la ñun aussi nekkul ne ay xale yi Pastef kese lañuy jàngal non ñu politiqué wuñu loolu dañu dañoo ubbi bunt yi képp koo xamante ne rek bëgg nga ñëw euh, ñu jàngal la ñu jàngal la loolu dañ koy def parce que dañoo jóge ci année boo xamante ne métti woon na trop ci jàng bi parce que ñi ci mëntu woon def cours examen yi tamit gis nga résultats yi ba pare xale yi wàcc loolu nag boo gëmee sa réew bëgg ko am tuuti am am loo yàlla dimbali aussi au delà de mën a defal sa bopp danga war a fexe loo xam te ne koy contribuer ci bonne marche société bi loolu moo tax gars yi di dox société euh, euh, Fadilou euh, Keita ñu bari ci Pastef sa rawatina Ousmane Sonko dañuy wax mal gouvernance ci Sénégal ci lu jëm ci yorin wi nga xamante ni tey yorin wu sell yorin wu leer leeral alalu askan wi fan lay dugg luubal gi ñu wàññi ko est-ce que yow jàpp nga ne ni ñu yoree alalu réew mi ndax noonu lañ ko war a yore. ah loolu kay jàpp naa ne ni ñu ko yoree yore waruñu ko waruñu ko yore waruñu ko yoree noonu parce que tey boo xoolee rek jamono yi passé y a mois ci ginnaaw peut-être trois mois euh, ku mel ni cour de comptes nga xamante ne chaque année dafa war a génn rapport toogandoo na génnandoo cinq rapport IGE ay rapport am ñu ngi nelaw ci président de la République OFNAC. transmettre na ay rapport am ñu ngi ci procureur 94 milliards bi ngay wax mi ci procureur CENTIF euh, am na ay rapport yu bari yu bari bari yoo xam te ne mi ngi ci procureur donc bu nekkoon tey gëm nañ dëgg-dëgg bonne gouvernance bu nekkee dëgg-dëgg gëm nañ reddition de compte mooy maanaam layoog askan bi mhm. rapport yooyu bu ñu ko liggéeyee ba pare parce que ñu koy liggéey ñoo leen di fay mais dañuy exploiter rapport yi li ñu ci wax au moins ñu def boo seetloo du ñu ko def te pourtant ba ñu bëggee utiliser rapport IGE bu jàpp Khalifa Sall dañ ko jël utiliser ko jàpp ko ci loo xamante ne teguwul benn yoon ci ci ci euh, ci yoon waaye aussi li gën a grave mooy dafa am lu ñuy wax à côté euh, euh, maanaam kenn xamul noo koy wooyee parce que ci xaw ma sax naka laa koy wooyee ci wolof maanaam ku ma am ndey ku ma amul ndey te gis nga ku mel ni capitaine Dièye dafa toog télé ne am na benn ministre boo xamante ne fan yi bi ñu jàppee drogue dafa woote di laajte wàllam déggoo ñu woo ko laaj ko ne ban ministre moo def loolu de ak ministre boobu ñu fexe xam kan la pour jàpp ko dégg ñu ne drogue bi ñu saisir drogue bi ñu saisir benn partie bi dafa réer ci ñoo xamante ne ay nitu administration dañ fay pour ñu sécuriser drogue bi dégg nga ku toog ku bokk ci APR toog ne fii ñu bëri leen rijal mooy xaalisu drogue bi te man na procureur woo mun naa si joxe ay leeral dégg ba tey ba sànq ñu woo ko dossier 94 milliards bi ñun liñ ci wax mu nekk lu leer nañ te bu état bi amul fenn fu ñu jaar ci ne yéen waxoo leen dëgg su boobaa dañ dal suñu kaw mais dafa nekk ay plusieurs dossiers yoo xamante ne day wane ni bonne gouvernance amul ci dëkk bi te équité de chance bonne gouvernance su amul aussi égalité de chance da am ba pare xaalis bi nga xamante ne dañ koy soxla pour financer l'économie aussi day am jafe-jafe te su dañuy dem àbbi tamit euh, xam nga euh, réew tey dafa am xam ne moom lay doxee mais euh, corps de contrôle yi ci Sénégal est-ce que am nañ benn benn dayo bi wala benn crédibilité bi wala ndax jàppoon na tamit ni war naa mën a am ay reforme ndax xam nga tey of nag amut a sañ-sañ jekk-jekk la si yoon lim am rapport def rapport mooy jox ko procureur mais tey bu ñu defoon réforme ba of nag am sañ-sañ yóbbu la ci yoon ndax gisoo ne war na mën a am ay ay coppite voté. non bien sûr bien sûr non am na ay réformes yu bëri yoo xamante ne Pastef ci boppam moo koy proposé bu nekkee Cour des comptes dañ ne woon dañuy yokk ay mission ba sax caisse noire président bi ak caisse noire yi am yeneen institution yi Cour des comptes mën ko saytu parce que parce que caisse noire rek kenn du ko saytu muy benn IGE dañ ko war a génne biir présidence jox ko indépendance am nga xamante ne dina mun a eggali liggéeyam. of nag bu jëlee ay rapport su ko jébalee. procureur rek day décisiru mais procureur bu nga ko jébal def dara dañu war a mën a permettre ñu jël rapport yi jaale ko feneen foo xamante dina tax mu dox isaan de dañ ko war a def tey jii nii mënul nekk procureur mënul nekk le maître des poursuites ba pare ñu jël ministre boo xamante ne c'est un boo xam ne la bokk mu koy yilif parce que ministre bi ak gouvernement bi ak président bi ñoom ñoo yor pouvoir exécutif mais ñii ñoo yore pouvoir judiciaire dañoo war a mën a am indépendance pour exprimer justice mais bu nekkee tey ministre bi mooy jox ndigal procureur bi rek ku farak ministre bi parce que ministre bi mooy mooy représenté président bi ku farak ministre bi boo nekkee ci loo xamante ci ay njombe la bu leen neexee ñu protéger la wax ma dañu koy defal ñëpp de bu leen neexee ñu mais bu nekkee farak ñoom dañuy gaaw dal sa kaw gis nga conférence de presse bi ñu def ci affaire euh, euh, Karim Wade ci affaire Khalifa gaaw génn wax parce que dañ leen sant ñu wax moo tax mais loolu dañ ko war a dagg maanaam buumu njaameel bi nga xamante ne moo am entre procureur ak messager dañ ko war a dagg président de la république aussi génn ci carrière euh, magistrat yi parce que day siège au conseil supérieur de la magistrature te loolu rëq-rëq bu mag a mag a est-ce que ñi nekk ci corps de contrôle yi am nañ indépendance tey boo xoloon OFNAC tey yow euh, euh, Cour des comptes yaa ngi wax ne am na magistrat boo xam ne APR la bokk est-ce que réellement ña fay liggéeyee am nañ indépendance. non bu ñu amoon indépendance dañuy respecter texte Cour des comptes yi parce que texte Cour des comptes moo ne chaque année da nga war a génne rapport. kon mhm. pour fexe am seen indépendance xam nga tey bu nekkoon dañu la tabb fenn nga moom nga sa bopp yoon ngay doxal bu la loi bii la teg foofu nee. chaque année da nga war a génn rapport chaque année da nga génn rapport. Mhm. mais lan moo tax ñu toog 5 ans 5 ans laa la wax génnewuñu rapport te loolu mosu fi am Sénégal moo lay wax ni moomuñu seen bopp. ba pare tey bu ñu nekkee ñoom di liggéey am mes membres yu bokk ci ñoom ñetti membre dem di politique yi tamit loolu nekkul loo xam dafa bien que ñoom def nañ communiqué pour waxe waa ñu ne démissionné affaire bi noonu. Mhm. ba pare nguur doole bi mu am. Mhm. ak parparloo bi def yaa ngi fàtte magistrat de la cour des comptes yi demoon di enquête ci ministre boobu yoroon. da leen saaga dàq leen kenn mësula dégg ay magistrat la cour des comptes ñu saaga leen Sénégal la moo xew après dañ ko jégalu donc c' est pour dire que en dëkk bi li fi xew yéeme na trop te jéggi na te war nañu. d'accord euh, Fadilou pour ñu jeexal euh, ñu bari ñoo ngi laam-laamee ne Macky Sall dafa bëgg a toogaat ci bopp réewum Sénégal lan moo ci seen xalaat yéen. ñun dañoo wax lu leer li président Ousmane Sonko la wax loolu laay wax dama ne Macky Sall incha allah en 2024 du nekkat président de la waaw loolu dama ragal ni ci xelu ñi nga xamante ne dañoo bëgg mu def ko ci la gën a nekk président xelu président Macky Sall boo ko gisee doole yi muy def pour jox puissance ñenn ñi pour wàññi ñenn ñi xam naa dofee lay seet koo xamante ne dina ko fi uutu su fi jógee mais du moom moo mën a nekk président euh, mu mën a poser candidature am en 2024 parce que wax na ko fu nekk d'ailleurs wax na ni mënu koo def wax na ni euh, ba muy bind sax livre bi Sénégal au cœur am na fu mu bind ne maa ngi ñëwaat di présenté wu devant maa ngi présenté wu une une une seconde et dernière fois devant les sénégalais pour laaj leen seen baat mooy maanaam damay ñëwaat benn beneen yoon mu nekk mujjantalu yoon. boo xamante ne damay ñëw ci ñoom pour demander seen baat donc moom xam na ne mënul nekk candidat ci élection yi di ñëw li mu def rek mooy ngéem kennam si parti te loolu su ko neexee mu def ko ñoom seen droit la mais en moom mënul bokk ci élection yi te xam na ko. léegi bu si jéem a bokk. ah bu jéemoon a bopp ñun taxawaay bi ñu war a am rek la ñuy am loolu kay moom amul sax léegi euh, Fadilou Keita mënuñu jeexal tamit te laajuñu leen yéen waa Pastef dañu gis ne képp ku wax si Pastef euh, safaan wa moo xam journaliste moo xam koo man di doon homme politique euh, dafa am ñu nekk ci réseaux sociaux yi di saaga loolu moom lu mu waaw xam nga loolu bëri na li ñu koy laaj mais il faut ngeen xam ni en fait gis nga Pastef pour bokk ci xam nga Pastef idéologie kese la maanaam gëm la tey mun nga gëm Pastef fekk amoo carte membre mais loolu du loolu mooy wax ne yow bokk nga biir Pastef Pastef ñu fa bokk dañoo am membre man tey xam nga ni Pastef laa bokk doo mës a gis réseaux yi may saaga parce que parti bi ñuy nekk dem na ba def communiqué njëkk na bind administrateur parti bi njëkk na génn toog ne képp ku fi wax te nekkul secrétaire national te nekkul président de mouvement te nekkul administration bi te nekkul président parti bi la wax yow rek la engagé loolu wax nañ ko ba mu leer def communiqué nag ne ñun ñu ngi dégager suñu responsabilité ci képp koo xamante ne day waxee ci mbubu Pastef wala ci turu Pastef ñun santuñu ko fan yii passé am na benn am na ay nit yu nekkoon ci whatsapp bi di bind ci ci ci ci ci internet bi di bind ak yooyu def nañ benn communiqué bind seen tur carrément mhm. pour wax ne instance bii ñuy wax tuddee diw bokkul ci Pastef xam nga ñun tamit loolu la ñu mën xam nga internet nit dina fa dem ne réew mi bokk fekk bokku réew mi te dem fi ne APR laa bokk fekk boo fa nan dina passif laa bokk fekk bokkul passif mais ñun ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ànd ñoo ñoom ci saaga ak wax lu ñaaw te képp ku ñu gis nga koy def dañ la artu wax la dëgg parce que li def liggéey la boo xamante ne li mu laaj leneen la dul ay wax yu ñaaw ak ay wax yu amul teggin. Euh, jërëjëf euh, Fadilou Keita lan ngay tàggoo ak euh, suñu bokk auditeurs yi. waaw ah, di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci temps bi nga xamante ne jël nañ ko ci ci ci ci déglu waxtaan bi. mais di la gërëm aussi Abdou Khadre ci di remercier bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla liggéey bi gën a jëm kanam di ñaan yàlla li nga xamante ne aussi euh, wax nañ ko fi nekk loo xam day jëriñ di ñaan yàlla aussi la nga xamante ne moom la ñu bëgg pour Sénégal yàlla may ñu ko ñu doxal ko ci jàmm ak salaam incha allah te bu mu am benn ay incha allah 2024 président Ousmane Sonko nekk président. jërëjëf euh, mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot euh, bu 15h euh, jotee jàpp 16h moom nag mu mbokk ci membre cadre Pastef Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi du Diawa Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf ba samdi bi di ñëw allah ci beneen jataay.